def cérémonie bi soxla ñu ko parce que rajo état la waxuma rajo état waaye rajo Macky Sall képp la jërëjëf